seen animation Milzo moo leen may Koor Family bi booy ñu waaj salaatu de doo yee daaw da mu ñëw xëdd mais booy boobu bu woo baay kooku fekk la baay wax nga dëgg booy boobu dafay àll ku dog si kër gi mu boole la bu yee de bàyyi ko foofu mu tëdd booy waxal ndànk bala moo bala mu loo dégg waaw booy wax nga dëgg sax xaaral ma dem tëdd. waxat ngeen pare. ah Daouda xëdd na. waaw mère Daouda xëdd na ba pare kay. mère moom dafa soof. indi trois mois ah Daouda waaye suba naa siiwul Daouda. Daouda xamul sax ku ko seeqal. day def dof rek baabu suba rek dama koy topp mais booy Medzo tey xëdduma de nu mu nii baay ana mère baay ana xëdd bi. soo xëddul man lu sama yoon. dama laaj ko maire bi ne ko si mais booy temps yëpp dama a seetlu léegi sax ba leen xët doole ma woo wala li ma leen boole moo tax bu de booy gisagoo dara sax lii lancement bi rek film bi ñëwul waaw Daouda yow lan moo xew sànq tey maa ngi lay gis nga obali rek. yow merew mel baaxul de te bu wax dara dem nga yee ñoom Medzo te man yeewoo ma. yow kon dem kenn yeewu la man ak Ibou mun a yeenal su ma xamoon kay yeenal. mais bu mu wax waxi noonu ñun fan yi sax jiw moom maa ah instant de mooy loolu gis-gis bëreetul sax mën nga mais mère yow xaaral ngeen balag wala maa ngi fi fa bëgg dee nga may wax loo te am naa defet de booy lan laa war a def ba daaneel leen sax naa jéem a def ba daaneel leen xamul nu muy demee nag.